dama dégg ci déclaration semaine bi passé directeur FONSIS euh, Pape Demba Diallo ak euh, docteur Thiam Doum bu ñu leen interrogé ñu nekk ci média yi ni Genitech entreprise bu nga xam dañ ko signeel mandat de recherche de financement dañ koy yónni pour mu wut financement loolu nag mu nekk tuuma bu rëy moo tax moom laa bëgg a dindi mu leeral askan bi ni loolu amul li am mooy ñun architecte Malick mbaw dafa ñëw sa début bi ci début septembre deux deux mille vingt ñëw seet si ma <coughs> ni ma monsieur le directeur général sama bureau la ma seet si yoo xam nañu xam-xam bi nga am ci développer ay projets yu mag xam na nu aussi euh, li nga jot a réaliser moo tax dama ñëw am yaakaar gu rëy présenter le projet hôpital Dantec projet bii nag depuis mille 2014 am na nañu. validation bi kuréel yëpp lëkkaloo nañu liggéeyte ba nit lii lañ ko bëgg a doxalee ñu bëgg nag léegi nga jàppale nuti ti sa xam-xam ak say pexe ah pour mën a réaliser projet bi man nag doomu réew mi laa te li ma ñor rek mooy luy jëmale Sénégal kanam te ma gis ni président de la République euh, ti loolu lay dox pour Sénégal avancer réalisation yi mu fi def rawat na dans le secteur de la santé loolu moo tax hésité wu ma sax man ko kooku de dinaa ci def li ma man dinaa def li ma te bu incha allah ma dugalee sama loxo yàlla mën na def mu sotti fi ñu toogee noonu mu daal di woo directeur hôpital bi expliqué ko ñu ko ah man de maa ngi lay indil suba kilifa gu mag bu nga xam ni defe naa ni sunu projet bi nga xam boobu ba léegi ay at ba léegi ñu ngi ciy daw amul solution dina te am solution parce que depuis 2014 ñu ngi ciy daw amuñu solution le land automatiquement directeur bi daal di daal di joxe kii nu mu tëdd quel rendez-vous bi le lendemain à 10h le lendemain à 10h ma ànd ak moom dem fa mu accueillir nu vraiment kontaan daje bi ba pare expliqué waat li Malick Mbow wax bi mu ko expliqué man ko loolu de dinaa ci ànd dinaa ci sawar waaye comme hôpital bi nii ma ko gisee nii. problème yu bari na te en tant que expert il faut dëkk ñu formalise suñu collaboration comme ça ma gëstu yan mooy problème hôpital bi ma gëstu difficulté yi comme ça ma indi solution parce que li am solo ma indi solution min ma waaw ñu signé convention cadre bi ñu ko signé après ñu jox ma document yëpp ma dem gën a xóotal liggéey bi ma ni leen dama bëgg financement bu nga xam ni day yomb te te te pay bi ba pare dee gudd pour oyofal pay bi ñu étaler ko ba vingt ans ñaar fukki at booleeg ñetti at yu nga xamante ni kenn du ko fay mu nekk ñaar fukki at ak ñett bi ñu defee loolu ma da au du mois de décembre deux mille vingt et ma daal bind docteur Thiam ni ko ah pare naa léegi de 14 décembre de mille vingt et ma bind ko mi nii. ma bind ko ni ko docteur bi naa man ni ko la nga xam ni moom nga ma la ñu woon ci contrat bi ba fii ñu toll liggéey naa ko léegi naa pare naa pour démarrer travaux yi mooy 14 décembre 2002 dama bëgg nag nga deji gis kilifa yi wax leen ni leen sunu promoteur bi pare na nga xamante ni bu ñëwee mën a démarrer ma toog ak diir gisuma ko tontuwul ma daal di fay dem toog wax ak moom ni ko waaw lu xew yow yàgg ñoo nga sama bureau yàgg nga maa woo bis bu yàlla sax nga naan ma jaañ jaañ jaañ kañ ngay démarré ma naan la xaaral léegi pare naa ah lu tax dem parce que vraiment donc lu tax mu dama bëgg daal nga rapproché wu ci de la santé ak direction directeur direction directeur FONSIS comme ça nga mën a continuer eh, collaboration bi man ko d'accord automatiquement ma daal di bind le ministre de la santé le 11 février 2022 mi ngi nii avec accusé de réception bi ma ko bindee li ma wax fii rek laa ko wax ni ko monsieur le ministre li ma bëggoon daal mooy liggéey bi ñu defoon ba fii ñu toll pare na te danoo bëgg ñu jël matuwaay pour pour mën a démarrer travaux yi contrat bi bi ma signé ak directeur hôpital bi mu ngi nii mu ngi nii contrat bi bi ni jën teg international promoteur promoteur nag mooy lan bu ñu ko mënee teg mooy ki nga xam ni day étudier wut financement ba pare nag tabax bu tabaxee ba pare nag door a jébbal wala mu exploiter boppam wala mu jébbal ku koy exploiter mu de ñu delloo bor bi mooy rôle promoteur donc promoteur mooy ki nga xamante ni buy tabax day jël entreprise yi gën a xarañ ci àddina bi ñu tabaxal ko mu fay leen parce que mooy endetté wu su paree mu daal di jël hôpital bi jébbale ko ministère bi mu nekk hôpital public continuer def liggéeyam comme ni mu waree moo tax bi ma déggee Euh, euh, euh, dem ba Diallo directeur du FONSIS ak Thiandoum nii mandat de recherche de financement la mel ni Génitec intermédiation financière lay def wala courtier la buy wut financement pour état du Sénégal wala pour ñoom du loolu contrat la bu nu bind mu leer ci kaw loolu ñu def liggéey bu mucc ayib étudier formule innovante bi nga xam ni moo adapté ci hôpital bi nga xam état du Sénégal du ànd tew du jaay suuf dinañ ko tabax te remboursement bi dina oft askan bi état fa muy intervenir rek mooy cas de force majeure par exemple en cas de force majeure ou weer bi déficit am na déficit mu compensé mais bu dul loolu li na xam te hôpital mën na rembourser boppam detam Chine hôpital yëpp ñooy rembourser seen bopp seen dette du état mooy endetté wu di déedéet te man li ma jaaxal mooy suñu hôpital yi ñooy dañuy déficitaire mais suñu clinique yi il sont ils ne sont jamais donc loolu loolu muy wul pourtant ce sont les mêmes personnes qui sont là à à moo di que problème gestion la rek ak suivi. ci kaw loolu nag pour pour pour pour mu leer ma leeral askan wi lii moo nekkoon contrat bi Hmm. te signature bi mu ngi nii par le directeur de l'hôpital et mu ngi nii et le promoteur Genitech International bi ma demee ministère de la santé eh, bi ma kii bindee courrier ministère de la santé nag ñu mettre ma en rapport avec euh, seen directeur euh, le directeur de cabinet du ministre Alphonse Thiaw ma ñëw ba ak sama conseil financier ñu rencontré ko vraiment mu nekk rencontre bu nga xamante ni bu rafet la mu teel nu ba pare daal di woo Cheikh Tenante Kale rendez-vous ak euh, Ahmed Diouf directeur des infrastructures le lendemain ñu dem rencontré ko explique mu ni wax dëgg yàlla seen dossier yëpp jot nañ ko te li nuy jot am te dara lu ñuy wax xanaa kay nit dina tool fu nga xam ni amul lu muy wax te sa dossier parce que sur le plan am ngeen validation nationale seen financement pare na dem leen gis autorité yi pour ñu mën a valider seen dossier pour ñu mën a wax kañ ngeen yi démarrer mais man daal li ma lay conseil mooy dama gis kilifa yi parce que man Ameth Diouf sa dossier yëpp sur le plan technique sur le plan financier yëpp pare nga te wax dëgg yàlla offre yi ñu def yëpp ñëpp dañuy demander état di financement état mooy financer mooy gàddu bor bi te yow defuloo ko benn doomu réew nga mais dama gis autorité yi loolu daal la ma defoon comme conseil man daal di fay jóge daal di bind le chef de l'État bi ma ko bindee adressé ko courrier bi accompagner preuve de fonds yi de fonds yaa ngi nii nga xamante ni moo war a financer hôpital bi dama dem ba réactualiser ko ça en 18 18 18 août bi avec toute la traçabilité disponible te partenaires financiers boo ñëwee euh, imaginer leen fonds yu nu mobilisé depuis décembre 2021 ba fii ñu toll après huit mois ñu toog képp kuy financier dina xam coono ji nekkee képp kuy financier waaw dina xam li ñuy endurer ti ti ti ti coono loolu gëm ni ñu ñoo war a defar suñu réew léegi ñu adressé courrier le chef de l'État buñ ko adressé courrier bi won ko ni pare nanu comme ñëpp nee na dem na seet autorité yi wan ko ni pare nanu fii la ñu toll fii la ñu jaar mais comme courrier boobu amul réponse booba laa daal di tirer conclusion ni yëgu ko parce que ku nga xam ni li muy tabax ci hôpital li muy def ci infrastructure ku ko indil solution ku ko apporter soutien moom la soxla donc lii yëgu ko man loolu moo nekkoon sama gëm-gëm fu ma ne leen hé président yëgul lii ci kaw loolu quelques jours après ma dégg ko comme si ak sénégalais yëpp ci télé bi ñu ne ma euh, voilà donc l'hôpital euh, va être on va vendre une partie de l'hôpital qui va servir de lever des financements dañuy jaay benn pàcc hopital bi te loolu la ñuy wutee la ñuy wutee xaalis pour mën a tabax hôpital bi ma ni sama collaborateur li ma leen waxoon président yëgul li parce que loo xamante ni teew na pare na da ko fa ñukk naan da ngay jaay waaye boo ñëw poussé ko lii fi sës kilifa la te puis am na lu nga xam ne moom li ko ñor rek mooy ñu réaliser loolu daal ci laa gë sama ngëm-ngëm boobu gën tee yokku man nag comme sénégalais rek def démarche fii dégg naa nag temps yëpp ñuy coow di wax hôpital bi léegi léegi léegi lii ku ñëw wax ma jaañ lu xew ma expliqué la mel ni askan bi bu ma nee génnal wax moo tax tey ma génn ñëw wax expliqué problème bi fu mu nekk fi ma jaar ba fii ñu toll lan laati def soone yi ñu euh, yiñ ti jànkonteel ak nag leeral askan bi leeral askan bi ni bu ñuy tabax dañ koo def méthode bu nga xamante ni ay phase ay pàcc lañ ko def ay phase phase bu nga xamante nii comme hôpital bi yaatu na dañuy tabax par phase euh, système bi système continu lay nekk nga xamante ni le service day nekk day continuer ba pare ñu continuer di tabax ba terminer vraiment tabax bi yëpp jébbal ko ministère de la santé mu continuer exploitation donc yooyu yëpp ci njalbeen je loolu la ñu prévoir donc moo tax ma gis li xaw léegi vraiment euh, te ñàkk waxtaan rek ko indi ak concertation parce que xëy na bu ñu déglu woon ah, yooyu yëpp du am. génne malaat maladie fii ah génne ñi ñi parfois tëj deti bon mu ne mu ne mu nekk lu nga xamante ni ça me gêne beaucoup malgré les efforts autant sur le plan technique que financier yi ñu déployé rek pour que ñu atteindre objectif avoir une, euh, un hôpital de dernière génération